asalaamaaleykum mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futur Média 18h45 xibaaru ngoon yi bokk na euh, ci euh, bokk wala bokk li liñ koy dooree sax mooy nit ku ñu faat fële ca Ngexoox nekk ca département bu mbuur ñu ne daal benn nit ab xale la bu toll ci fanweeri at daanaka ak lu topp la ñu jamatee paaka ba mu ñàkk bakkanam ci benn restaurant la amee ginnaaw ab xeex bu fa amoon ñaari nit yi ñuy tuumal ni ñoom ñoo ko def nag ñu ngi leen di wëy ñu ngi leen di wër ba léegi. Euh, gendarmerie ubbi na ci ab blanquette dinañ ci dellu ci ci nu mu gën a yaatoo ak si suñu ndaw lañu ñu toogal foofu ca Mbour di Abdourahmane Diallo euh, fële ca Ndar moom ginnaaw ba ay nappkat ñàkkee seen bakken ci euh, foofee nga xam ne fa la dex gi ak géej gi dajee Euh, conseil local de la pêche artisanale mu ngay artu nappkat yi nekkee foofu foofule lam den di digal mooy lu météo wax rek ñu wàccoo ko respecté ko euh, bu leen teree dem géej ñu bañ a dem waaye tamit ñu instauré ay heures yoo xamante ni euh, maanaam 19 heures bu xasee ba jot kenn du dem nappi ji ci embouchure boobule CLPA bi li mu bëgg it ci état bu Sénégal mooy mu baral loxoom ci projet bi ñu taxawal ngir géolocalisation gaal yi maanaam fu ñu nekk ñu mën leen a xam moo jiite CLPA bu Ndar ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. di si jaale famille bi nga xam ne tey jii noo noo ñoom la accident bi eh, dal nu gënaat taxawaat maanaam si bël bi parce que am na si loo xam ne nemmeeku nañ ko ci ci dugg bi ak génn bi tey yooyu yëpp ci ay ay problème lay lay indi en tout cas taxawaayu CLPA daanu fexe ba yokkaat surveillance boobu ngir renk rek ngir sàmm ñi nga xam ne tey jii nooy sunu askan parce que CLPA sécurité mbirum sécurité mool yi daf ko soxal lool lool lool lool te am na benn préfet benn benn arrêté bu si bu si génn boo xam ne dañuy interdire dugg génn bël bi wala dugg bël bi 19 heures te loolu aussi daanu ko gën jëmmalaat état bi amoon na benn politique mu tegoon jëm si géolocalisation yi te it ñu gis ne loolu bu amee dana nekk loo xam ni njariñu wala sécurité mool lay doon dana gën yokkaat sécurité mool am na benn bulletin alerte sax bu euh, ANACIM génne mu ñeel tàngoor bi ñu ne juróom-benn fan ci weeru avril barki démb la ba fukki fan ak ñaar ci weeru avril bi ñu nekk boo moyul dina am ay diwaan ci Sénégal tàngoor bi dina leen lëjal loolu lu ci mel ni ay boori Tambacounda wala sax ci bët gànnaaru réew mi yenn ca diwaan yooyu le te loolu nag li mu nar a jural askan wi wala nit ñi mooy ay sonn wala sa xëm fexe ba sa yaram manqué ndox ak ay bopp yu metti wala miir kon ANACIM di sàkku eh, ci askan wi ñu bàyyi xel bu baax a baax ci eh, bulletin d'alerte boobu ak tàngoor bi nar a am fan yi ci yenn diwaan yi ci réew mi ci jamono koor gi nag am na lu manqué muy gaz boobu ba léegi ñu ngi koy waxtaanee soxna yu bëri sax daanaka jamono jii këriñ képp la ñuy toggee eh, ci weeru koor gi ndax butéelu gaz moom eh, jafe na nga gis ko ci boutique yi wala ci station service yi waaye jaaykatu këriñ yi ñoom gisatuñ ci seen bopp ndax dañoo jàpp ni këriñ ci boppam moom moo manqué eh, teg ci dafa cher loolu balaa nga cee teg sa loxo di nga wax lu seet wecc reportage Habib Faye ak la Fall këriñ gi ñuy gis ni doon na loo xam ne jamono ji askan wi taamu nañ ko lu ko waral gis gaas ci say gët jafe na ci pàkku këriñ bi moom mii di fi jaay la tiis aw xolom rek bokk na ci anam nga mu koy amee ndax dafa cher. liñ ñu gën a sonal mooy ñi nekk ci àll ba ñi nekk ci àll ba balaa ñu laa solal këriñ suuf kese lañuy sol teg ci tuuti këriñ bu ñëwee baana baana bi tegal la ci xaalis bu dul jeex. ngay jaay di perte rek en plus kërim bi dafa seer. baaxul dara loolu rek lu ñu ñoo am suñu jafe-jafe daal liggéey bi rek moo bon àll ba loolu na eh, nakari na ñuy liggéey si kërim bi daal. loolu du jooyuk jaaykatu këriñ yi nekk fii ci diwaanu pikin rawatina ca marché Savanel waaye këriñ gii de moo tax ñoom ñu ne waxatuñu dara faw rek ñu uti pexe ngir li ñu gën ko mën di jëmmal. mën naa laa wax ne diggante démb ak bërki démb yëpp dama tardé ndogu ndax ñàkk gaz ak wër këriñ ba sonn ñàkk wër gaz ba sonn mujj gi damaa mujj ñëw jënd këriñ di ko toggee. suñu sañoon daal état ñu jëm ci jàppale nit ñi quoi waaw. ca geneen wet ga. ñi nga xam ne ñoom ñoo cay yëngu di cay daan seen doole naam seen gafa mu ngay dund waaye lañ cay perte itam nee nañ jéggi na dayoo. gisul xaalis bi xaalis bi lu ñu gis yu nekk si àll ba ni ñu koy envoyé patron yi ñëw jël yóbbu xaalis bi. parce que balaa nga gis sa bopp mun ngaa liggéey fii deux mois trois mois. mun nga kërim bi problème bi xaalisam li li ñu koy jaayee xaalis bi mënu génne parce que àll bi soluñu këri gaz manqué gis ko doon loo xam ne lu jafe la këriñ gi taxaw doon loo xam ne maam moom la daan jëfandikoo ngir taal añam ba sax reeram ba ci ndekki gone yi tey jii ñu indiwaat ko sedd bi waral na ak ñàkkum gaz bi askan wi jëlaat ko def ko seenik moomeel jërëjëf Habib fay Vieux Diouf njuufeen bi moom nee na këriñ gi moo gën a saf ginnaaw nag fële ca Europe ba ñu gisee ci ay diwaan yu bëri lu ci mel ni ab salmonelle mu contaminé yenn ci ay produits chocolat wala produits laitiers comme fromage ñu taxaw seetlu ci jàngoro boobu boobule ab bactérie la bu ñuy duppee salmonel moom nag mën nga koo am niñ ko waxee rek ci li ngay jëfandikoo ci ay ñam wala mu jaaree ci ndox boo xam ne seetul. Euh, ñi mu gën a jël nag mooy xale yi ak euh, mag ñi wala ñi nga xamante ni euh, seen yaram amul doole torop ba bu ci duggee def fa ay yàqu-yàqu yu bëree bari jàngoro bi daanaka mën na sax faat nit bu ñu sukkandikoo ci professeur Babacar Niang ab pédiatre la Alhassane Ba ak Mohamed Niang dem nañu daje ak moom reportage. kaa yu njëkk yu ñu nemeeku ci wàllum salmonellose ca tugal te ñu jàpp ni li nga xamante ni moom mooy Kinder moo koy joxe moo tax suñu kilifa yi daal di réagir salmonellose buñ koy wax nekk na ab doomu jàngooro ji nga xamante ni ni muy manifesto ci yaramu doomu aadama bëri na. ñu koy ràññee d'abord ci seen signe yi parce que yaramu nit ki day tàng muy biir bi di trop sax biir di daw tamit également biir boobu di daw li koy gën a ràññee mooy euh, cabinet yi day mel lu ratax àndak dret deret nit mën na ko yor ci loxoom. boo nuyoo nit nga wàll ko kooku bu lekkee si loxo yoo xamante ni raxasul mu jël jaamu jaamu donc nit ak nit dañ koy wàllante waaye nit ak mala tamit dañ koy wàllante parce que doomu jàngoro bi mu si mala yi. tout tànk yi mag ñi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo amee li nga xamante ni moom mooy déficit immunitaire doon nañ ñu gën a exposé wu ci doomu jàngoro ji. ni muy wàlle jëm na ci wàllum lekk wala sax ndox mi nga xamante ni sellul nekk na feebar bi nga xamante ni mun na dem ba yóbbee doomi aadama bi mu ñàkk bakkanam. mooy ki xamante ni xale bu ndaw ak nit ku màgget wala boog nit koo xamante ni yaramam dafa am déficit moo naan yaram mënul xeex ak doomu jàngoro ñu mel ni xale yu am drépanocytose yi ñu mel ni xale yu malnutri yi wala ñu mooy xale yu nga wax dañu am jabet ñoo ñu général bu leen dalee ñoom lay gën a sonal mën a dem sax ba bañ hospitaliser leen wala boobu boo leen hospitaliser lu faj leen baax mën nañ dem ba ñàkk seen bakkan. ngir mën a moytandiku ci doomu jàngoro ji professeur Babacar Niang di wane yoon wi ñu war a topp. raxas say loxo euh, ba mu set ak saabu dafa am solo notamment boo jugee si si toilette boo génnee si toilette wala nga génnoon ba duggaat sa kër il faut ngay raxasu ak saabu nga am habitude boobu te togg bu ñuy togg ñu koy togg ba mu ñor togg ñam ba mu ñor tamit day wàññi jàngoro yi notamment yàpp yi wala lépp loo xam ne affaire nen la yooyu. amoon na beneen prévention na bu ñuy wax vaccination parce que feebar boobu am na vaccin bu ko mën a def. ministre mi wàllum jënd meek njaay mi di xamle ne lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróomi pièces yu jëm ci wàllum Kinder yi nga xamante ni nag jàpp nañ ñoo bokk identification ak loo yu ñu jàpp ni ñoom ñoo contaminé ca Europe jot nañ ko saisir waaye nag ba ci waxtu gi ñu toll amul leen li nga xamante ni mën na wane ni loo boobu dafa contaminé am déet société de grande distribution bii di Auchan moom euh, retiré na ci rayon bépp produit euh, bu bokk ci loo bi ñu ne euh, salmonelle ba da caa dugg foofu ca Europe loolee moom la responsable qualité bu Auchan fii ci Sénégal xamle muy dalal xelu consommateur yi nag Mariama Ly Mariama Ly Wele lay wuyoo ba léegi ci micro Alhassane Ba ak Mohamed Dieng. ñoo organisation euh, corporate à chaque fois mu am situation yu mel noonu dañuy yónnee ay messages. ay message ñuy jot euh, wax ñu euh, lan mooy problème bi euh, ci cas bi salmonelle la donc bactérie boo xamante ni dafa dangereux pour pour pour nit donc dañuy yónnee référence yi nga xamante ni moo ñoom lañ ñoom ñoo concerné li ñu njëkku jot mooy 19 références la ñu njëkku jot bi ñu jotee référence yooyu am na ci benn boo xamante ni effectivement c'était concerné amoon nañ ko boobu donc automatiquement suñu manager yi ak rayonnistes dañuy réagir daal di koy retirer ba pare daal di ñu koy notifier parce que am nañ benn application bu ñuy bind wax ni euh, référence bi kat am nañ ko te am nañ ci temps temps de produit donc euh, buñ ko jotee daal di topp procédure bi. ba yóbbu ko destruction ci entrepôt. alors damay wax suñu clients yi que ñu dalal seen xel parce que ñun euh, am nañu procédure bu ñu bind en interne bu ñuy topp à fois que ñu am genre situation yu mel nii et que c'est pas la première fois ñu koy am c'est que bii dañ ko médiatiser bii dafa wër àdduna euh, mais tous les jours dañuy jot ay euh, ay ay produits yoo xamante ni dañuy am anomalie wala loo xamante ni da ci baaxul ñun en interne dañ koy gérer ba nga xamante ni client bi ci mës a jot. projet de loi bi euh, ñeel euh, code de la route bu bees bi taxawal permis à point jël nangu nañ ko fële ci assemblée nationale euh, fii lek ñetti at nag dinañ ko doxal Gora Khouma mi jiite union des routiers ju Sénégal yëkkati na ci ay kàddu nee na yëf yi daal dafa mel ni dañ koo parax paraxee moom mu cay dolli ni jamono ji Sénégal am na leneen lu mu war a liggéey ci wàllum dem beeg dikk lu ci mel ni ut ay oto yu yees defaraat tali yi tamit ba ku ca mën a jaar gis ci sa bopp micro Abdoulaye Anne. la ñu waxoon démb rek la ñu wax tey lu mënul nekk dañu xam ne mënul nekk beaucoup de sénégalais nag ñoom jàpp nañu ne rek permis à mooy régler problème accident dootu fi amati fekk du noonu permis à point la dafa bari lu mu àndal loolu mu àndal nag lenn lu ci manqué rek tu am njëriñ. tali yi am nañu ay aire de repos oto yi amul benn oto bu fay daw 10 an te jële wuñ la ba maanaam le parc est neuf en France comme ñoom foofu lañ ko sàccee ba ne dañ ko indi. dañu waroon indaale lépp nag li mu àndal lépp ba indi ba ba premier à am fa ñu indi lépp bu ko defee premier à point day jaadu mu am Sénégal mais doo jël benn point rek politique boo xam ne bii la recommandation yi mu àndal war naa ma 10 nga jël ci benn point ne premier à point pour indi ko fii sénégalais koo wax mu ne ne permis à point nañ ko appliqué non dañoo xamul lan mooy permis à point permis à point doxewut noonu doxewut noonu dafa am loolu la ñu wax ne loolu ay caaxaan kese lañ am nañu jàpp nag ni permis à point boobule lu baax la ñu yëngatu ci wàllum dem beeg dikk bi dañoo gis ni dina wàññi bu baax a baax accident de la circulation yi ndax jamono ji booy xool Sénégal daanaka at wu jot lu toll ci juróom benn téeméeri nit dina ñàkk seen bakken ci tali bi ñoom nag bëgg nañu ay mesures d'accompagnement waaye tamit ay jumtukaay yu tolloo ak permis à point boobu boobule auto école yi moom jàpp nañu ni seen formation dafa adapté ba noppi donc dañuy jooyanti as tuuti rek ngir mën a euh, yam ak euh, permis à point boobule Pape Faxe ñi nga Amadou Ba defal nañu ci reportage. permis à point dinañ ko tàmbali fii ci réew mi fii ak ñetti at assemblée nationale bi nag daat nay adopté projet de loi bu jëm ci wàllu code de la route. décision bi nu mel acteurs yu bëree bëri rafetlu ko. di ko rafetlu ah di ko rafetlu parce que du pour euh, xañ kenn kuy liggéey sa mais c'est pour pousser le Sénégalais à ce que mu discipliner dans la sur la dans la circulation parce que le problème bi ñu am circulation Sénégal c'est l'indiscipline c'est le manque de citoyenneté mooy indi que ñuy toog ci année six cent personnes di dee ci dëkk bu ndaw bu mel ni Sénégal c'est trop au moins permis à bi dina mën a siffler la fin de la récréation permis à point boobu faaw nag ñu indi ci ay jooyante bu ñu buggee mu dox ci wàllu secteur transport bi naka noonu def ay yoon yoo xam ne yu mucc ayib la permis baax waaye nag ci ni muy baaxee mooy day ànd ak euh, ay bagages am yoo xam ne fekkoon ci tubaab yi ñu koy wax ne ne am mesure d'accompagnement lay àndal maanaam mu ànd ak ay appareils yoo xam ni ñoom ñooy contrôler ak seen bopp ba li li ñuy bañ ñoom man koo jël wala boobu am lu mel ni police ma gendarmerie tam boo xam ne ñoom itam lañ koy wax lu nekk rek loolu mooy nekk euh, tali yi. mel na war a mel oto yi mel na war a mel chauffeur yi am formation yoo xam ñoom itam formation yu baax la ak examen yu baax. lu bees li nga xam ne nag indi nañ ko ndax dina indi ay coppite ci programme formation ci oto école yi wala déet. Euh, ñun côté jàngale bi amuñ ci problème pour la simple raison que école yi ci biir formation bi dañu mos a jàngale cas d' infraction yi nga xam ne boo ko defee mën nañoo retirer sa permis wala ñu defal la mise en fourrière bu nekkee oto bi la xëy na bu ñu xaaree ba ñu génnee kii bi point yi. ba xam infraction bu ci nekk bu ko nit defee ñaata point lañ lay retirer bu boobaa dinañ xool ban greffe lañu ci mën a apporter par rapport à à l' enseignement que nous disposons dans les autres écoles. projet de loi bi jëm nag ci permis à point ñu fas yéene koo amal fii ci sunu réew yaakaar nañ daal buñ ko appliqué dina wàññi li nga xam ne moo nekk accident yi ndax lu ëpp juróom benni téeméeri nit dinañ ñàkk seen bakkan at bu ne fii ci Sénégal ci wàllu accident. Euh, ci dem beeg dikk bi ba léegi ak euh, BRT di bus rapide transit bi ñuy defar jamono ji am na ay jaaykat yoo xam ne dañ leen a teggi ndax xàll ba euh, yoonu bus bi war a jaar foofu lañ nekkoon ñoom nag dañoo weddi ba mu set wecc ne kenn mosu leen a jox benn ndàmpaay tey jii dañoo xëy sax di wane seen bopp ngir indi ay leeral ci ndàmpaay yooyu le ñoom jaaykat yi nee nañu boo moyul itam ñu dem fa mbaxana doonee benn ngir fexe ba état bu Sénégal lim leen warloo ak ñoom def ko Konté Diafara Ba reportage. li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum ndàmpaay gi leen fas yéene jox jëmale ko ci wàllum BRT bi nga xam ne impacté na leen ñoom marchand ambulant yi nekk fee ca jamono ji ci ay jafe-jafe nekk ndax ñeneen ñi bu ñu jàppee ni ñoom dañ leen indemniser ñeneen ñi ñi ci bëri nag xam ne ne ñoom gisuñu sax ñu jëm ci wàllu koppar googu Dakar dafa génn démb ne deux dimanche nañu waa seen jox nañ leen xaalis jox leen ay place fële te loolu amut loolu lañ bëgg wax waa Sénégal na leen ambulant yaa ngi nii jël ndax jox na leen xaalis ndax jox nañ leen place waa léegi askan bu tool nii nga bëgg leen sacrifice ci kilifa goo xam ne yaa leen war a xoolal solution jàppale leen nga bëgg taxaw ne jox na leen te loolu amut loolu duñ nangu délégué de marché bi nag di xam ne ni sax ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu indemniser bariwuñu par rapport ak ñoom ñi nga xam ne fi mu toll nii ñoom la BRT bi gën a impacté te ñu nekk ci marché bi ëpp fuuf. dafa am guru boo xam moom xam nga maa lay wax sànq may boo duggee ci biir garage bi nii palafoote yi fa nekk ak étranger yi fa nekk nga xam ne ay pousse pousse lañ yoroon ak mi mécanicien yi ñoo ñëpp waxtaan ak ñoom day demassé leen dox leen ñu dem moo tax déggoo kenn ko wax ci ñoom ndax ñoom day démarché nañ leen jox nañ leen ñu dem moo tax kenn waxul te ñooñu nga xam ne day démarché nañ leen ñu nekk fi mën nañ leen mille fois boo mënee wax ak ñun ñoo jox leen deux dimanche la ñuy dem te yow nga ne doo wax ñun loolu mun moo ñu jaaxal ñun. ñu toll nag ci juróomi junni marché ambulant fas yéene dem fee nga xam ne fa la mbaxane doone benn ngir nag li nga xam ne moom moo di seen àq ak seen yelleef ñu jox leen ko. tey nag mooy képp moom dañ koy topp jusqu'au bout bu bu laajee avocat danañ ko jël te am nañ avocat bu ñu waxal te incha allah rabi danañ jël avocat topp ko mu jeex tàkk ndax bokk ci réew mi lii mënuñ ko bàyyi noonu rek boo leen bàyyee ni ñu dem fan lañ dem ñoom ñoom marchand ambulant Petersen yooyu nag ñu mer ba futt jëmale ko ci autorités yi nag fas yéene nag xeex ba li nga xam ne moom moo di seen koppar ñu delloo leen ko ci seen loxo. jërëjëf Fat Bintou Konté yéen itam àndoon ak groupe Futur Média euh, télévision Futur Média ci xibaar yi sant leen gërëm leen 20h incha allah di ngeen ànd ak Sara Cissé euh, ci journal bi en français ñu leen di ñaanal euh, koorub jàmm ndogub jàmm ba ëllëg incha allah.